dañ am problème si tefes bi problème bi mooy ñun dañ yàgg si bij bi ñun ñëpp ga ñun ñëpp Gambien lañ te dañ yàgg si bij bi dañ yàgg di soona dafa am fonds yoo xam ne dañ yàgg di dugg si bij bi ñun ñun fonds yoo xam ne mu ngi si bij bi fonds yi mënuñ koo ju mënuñ see gis dara mënuñ see am dara lu lu leer. bi mbiri bij bi mooy problème bi. on nga bi mbiru taati pare bi tefes bi bij side bi bu booy si dañ yàgg si bij bi nit ñi ñuy struggle la ñoom ñooy naa victimise boor bu nekk nag in any side nag ba even suñu own brother si nga xam ne ñoo war a ñëw sax foofu sax pour war a find out suñ ay mbir sax suñ duggee si tefes si Banjul bi you don't see them asking us or trying to find out where we are fan lañ nekkee yaa ma understand so therefore ñu dem ba gis ay corruption si yoo xam ne xam nga si biir bij bi daal mënu understand mfele banjunu bisi sija ngamo kuo men sija menga da banjunu badala kuoti be banjunu badala kumo fala janga fele janna da pour mensara nimme o nyojuno menga da banjunu tendala kuo de bigo banku dun ni senegal o lebe nyolo je pour tendala kuo nim bangola kuo même je problème tal même bado ko la je kam be je me ko ni senegal be je o le tambindi je nyaton ga yala e kay kunul kanin namola badala je kam e ka ko do sige ka samba senegal fembuka ɗum no banque o kam pour que ta banque o nafa ñamen nafa nafaɓe baɗala kam ka kafuñoma ka samba sénégal silantol banque ɗum wulta walla pour a korra et fayat kaymo sila la gambia marañol mi walla kalo kaymo way ko ka semboɗi sénégal el laxam ndeng am problème problème ndeng am si problème tefes problème tefes si bij bi ok dañ fa yaakaar na di nga man depuis bu ma nekkee xale bu ndaw ne amoon 20 si tefes bi ba am doom booy ñu nga am benn jiit bu fa nekka jiit bi daal booy ah. bro njiit bi defar ñu ko dara dimbalo ñu xol ñu am ñu mel xel mom lu am rek mu ci ko am lo xam ne fu ko tek bu la ko tek so ñu dem ñu dem ba gis ko ne ñoo mégal ñu bëgg ko fa gëné mu ñu ciow so ciow na mo ñu indi fi nak tay akarale meke jam ma refu rek um, ino i ne ino fop mbogul ino fop maga injalla ino fop jallel ke isukande sukande ko parce que onana nga ola isuk ola suk isuk suk Nana o leya a tefes isuk suktaxu suka refatange rek a tefes jega te njiriñ ino koy i ngar meke pour o jam jam ɓisiidu in meke pour a tefes ina le na i nambi na mbi bota jag yaam ke maya ke na maya to osi i mbaye ten dara awa na tamit lu tax tamit ñu ginnaaw tax tamit ñu ñëw lépp tamit suñ mbiri tefes bi la tefes bi although mun naa la wax ñun Gambien ni comme respect guñ musoon naa waxtaana benn Sénégalais mu ma tegal ne ma yéen Gambien yi da ko so wax boobu nag mu jaafe ma ma jaafa wax boobu nag comme wax bu diis nii afta bu ma demee ba toog ba xalaataat wax bi nii waaw ne ma yéen Gambien yi da ngeen ko so after all si élection noonu laa ñëwee ne ko yow miin sa wax boobu noonu ne ma ndax ñun si dañ ko mu ne ma yéen da ngeen dee yéen bah yi da ngeen bax baax bo xamni ni da ngeen dee yaatal gan ba ñu sa ex sen ko bopay liggéey lu muy gaay yi comme ni lu gaay di liggéey jaaree ni dem euh, dem sen yoon yéen gambien ni ñen nek afira di yolox yolox moo tax may la yéen a ngeen ko ni ku ya wala ben wala ben na wala mu waylin wala na mbek mbek faare ay sen ko bon police la ay dara dara na ko wol fight gay badala because mbe badala le lafta menna ma soto no lafta kengi sila kala president president kata kala bulata kayro nanga ko be ke nyawnyan dem ma soto no so wala nan tada police na da fo jam bcc jam so na problème mu nadi ndolbe badala le more than 20 something years mbe badala ya understand e ko pour fandinki wala kabiri ya jambe jamano ko dol kanale pour ka yursol ma pour ba demalalo o ko do handal so maje so saaɓe dama do sayi a bandalen ɗon bambon kuuto ene wiya gambe jang hana stay house ni preta pour nga fota je nin président ñoje gos way ɓe ele banko kan mel rat sotno je ini banko dum fon ka ɗum ñola fon a manol ke ma koy pour pour o pour ha o pour oh, oh, oh, mu bo en to batatal de di jamal nada badala billah wallahi ya understand so hansan still ndol be batako kono so sambe ɗemen do sa sestale installation ɗo kuto kuuto mbambam fen fene ɗo 4 million natale 600000 200000 ko ɗon nata ɓoye sa en e ka banko ɗumol filije kata e kartala luntawol temo o mo munadi soban ɓe tefe soɗo dow koɗo janna bañun mu badema laalti ndala dow ko be mu bademolde ya understand gos ndol man kal soto ñim banko kanjang so muna bo sabla fo mi alangoy man ko banko diŋol te mi alangoy bi ka katte kiso fay wala ko lo badala ko banko kay ko kumo fije kumo mi ala kake so muna bo sabula o ma nyala ka ke by right si so ndol be dem ndo sa ndol ba dem la na ba bele tinyata no no ba bele tinyata na ba bele tinyata na ba dala tinyata na ba be tinyata ya understand go sa nyim ba ko na fo ni tal je fo be me sotlo be balu fo sotlo me fo it's going to be a problem abuko soto dafa am suñ président boo xam ne moom si sénégalais la sénégalais la ñun depuis taamindoo ñu ngi fi suñ papa yi ñoo fi jiitu ñun eti somtin yees suma daat bi mu ngi ci tefes bi ba léegi tefes mënuñoo am ceeñis ba tey kama mënuñ ko fa am toilette mënuñ ko fa am ñun suñ buggee dem toilette si biir maquette bi la ñoo dem pour dem toilette ak fonds yi dugga foofu million sangee dugga si bi te duñ si gis dara soo ñun dañ soona fu mu nekk nii dañ bugg a président bi si boppam mu wàcca ñu ut keneen kuñ fa teg président bi nga xam ne moom moo fa nekk fu nekk nii mooy Babou Thiam waaw bij bi ndoo yi ngeen a interview yi tri côté bi yëpp foog naa ne ñëpp foofu leen ma fekka man I am there for 25 good nekk si bij bi ba léegi ma bàyyi ba ma bàyyi driving rek dem si bij bi stay fa di fa xosul soo gisee ma taxaw fii di wax sax waroon naa mun a bañ a taxaw di wax fii parce que government jox na ma job man ame ame ame dog wooka number one waaye su ma taraanga fële la nekkoon démb wala tey comme ni ko ndóoyi di waxee rek bij bi booyee ñoo soona Gambien si seen boppa ñoo soona jaruñ fa dara da nga rasaan ba association bu fa nekk dafay yaaga foofu yaaga boo xam ne doo ko mën a topp rek dóor ko génnee ko fa wala nga jaay ko doole génnee ko fa da nga mën a ut pexe wala nga ut koo mën a waxal sa ay mbir ba fexe nu fa jógee da nga rasaan bij bi amu benn change change si biir 25 years man yu ma fa nekka leeli ke maya kena fiyela maya to aussi i mbaayeten dara inga e dal presida fane tenef ten ref cham tenin bugu tefudo olla lakasa moof yam kalis mayu andok-andok ndangan ne to ino weke ino tahu ndangan ne len to imba mbaye ten dara i ande ten tus itam to han ne ganaaw ndangan de iya karu ino fok fop pasil pasil ina ndefa def mege i mi fane ke na laya fo rime bo meke jegum i pasil pasil fop a mbee bo sañi mbaɗana jeeyaɓe tiñade no kala kulol kanale ni complainte fon ite dankula because mane men fon ka tara baɗala marañol ni mansal men fo ka tara baɗala wala len na baɗala fon tiñaga mansal mel ka tara baɗala wala len na baɗala tiña mel ka na baɗala kanta because ko kullel ke je milalan ko ino man nafa soto ya understand ne o man nafa soto because mane ni forenolo lol ka laño kan sénégal lol ka laño kan ko kutama de miyalan ka be na fulo kodo jima koɗo kodo ya understand ne ñadon ko yo stop ban jima koɗo kodo yo stop ban You understand? Ye bule taro noma. Taro woo bule noma. Wala importanta. Ñu sen gor mo ñu fi tay walu am. Ñom ñoko mom ñu amuñ fa dara. Te ya depuis jawara be ya jam ñu fa indi alal. Wa bañu bi nga tefes nga gis ni. waa amuñ kama amuñ yoon amuñ dara amuñ loo lo xamne sacrifice na gambian. So ñu bu ko fa gëné xam nga. Ci ñu ay diko Sénégal mi nga ñu bañu loolu sax. Wa dañ ko ko jup. mu toogal ñu fa koo xam ne duñu lekk baaxaar ñu am jaama Gambie am jaama leen bëgg loolu moo seen problème ngan lo nga banko ɗo nga tanyat ñina mum na probléme mot biko biɗen mu men tige biko ɗuɗen ni senegal mbé sabala ñu biko président men babu jee min gaɗa babou camuta koɗol kanaje kuwol kanaje fanfana ni senegal lo loka si bindolo ko fin di banko ka ay na président yal nga mo tombo men sindi mi anko membe banko sambala ñaar membe tanda sambala senegal sénégal parede ko a da kala da kala sam senegal be kala président ñaarongodo baɗala ndal banko ka da kala dem ni bol fitno ma ne la woon ak sax amuñ ko amuñ woon dara lu dul di sant euh, Rugilo moom moo ñëw sax dimbale ñu sampal ñu toilette ñu gis toilette waaye still naaw ñu ko close xëj na tamit xamuñ tamit naka la fa demee. ñun li mu bëgg pour maire bi defal ñu ko mooy pour nañ ñu recommend as a society because we are trying to make our own society as Gambians as a Banjulians yaa ma understand ñun loolu la ñoo fexe nii te dañ bugg a bu ëllëgee be demee ba nga xam ne jaar nañ fi war a jaar yëpp am suñ kayit yëpp buñ ñëwee ñu jox ñu suñ rights yaa ngi understand ba pare give ñu the back yaa ngi understand jàppale ñu ñun loolu lañ bugg a moo tax ñu jógee ko fu nekk ñun ñëpp ñu dajaloo ko ñëw ba fii yaa ngi understand di jéem a jàmbat suñ problème we want help for anyone who can help us sanke mon ko wulta walla felanta ara bañun police a kuwoñi na sa mboɗo je kon kon nara mewoya pra wuli ma a kuwoñi probléme mɓe mbaɗala kay mom ye wuli a kuwola ya kuwo wata ɗo bayi ɗigo nafa men ɓe je kay mom alnin cilaɓe ndiga mbaɗa mbiten fanfan ndin ɓe je a nafa kata sénégal lafta banko mo le wulba yana baɗala men ɓe keɗen je ya jiɓe mina ɓe je fo bankola ñatal ɓe fala komataɓe je ye wule ko biko kata nyami bi tenda bi je kam nafa kana tenda je kam dun dal kenyo sam senegal banko bu kata no nyal banko dul wulta pour ka right fait na banko jawol mi anko yer do kulal mi anko kam o lanyanda banko dul mako pour ka lo banko sal wala kana lo ko ka lun dal fasa jennim fitna ba kali je do ma lafta man sey wuli kama na gol la imbo mugin ne pour wine andam ta in ino aussi i mbom go ndamta ko in ndamta nami mbagu mbi bo ndamta ko in ten ref o anne babou thiam im sutin i mbalin te fudo o lakasa ngaay pour i mbago njalli ndangan ne yami ndangan ne développer e dara ndangan ne mom développer o tanga ndangan ne bañun sax ande ndangan ne bañun développer e kana bula mo no me be fensikale baadile because ñun sasa me fo be kedin kulungo do teta jele gambia diŋolu yeje mi ye a lon ko yaje ko ñumu kulundun tama lati i e complainte ala kuwo fata wolte me danku I understand it. And the munatina ye fenna bondi ya dira ye ye deyo fe. So obuka bango samba. Fengo obuka bango samba. I understand it. Yo sifa stop. Ye ke jo kodomene yo yo muta yo one ala muta. Ole betiata. I understand it. Dukalante yo bula. Dukalante buka bango samba. Ka bango tinyale. so legi, it's high time tamit new one new tamit full tamit suñ bij bi waaye tamit lu ñu gën sonal mooy brightness bi nii suñ suñ tefes bi moo ñu gën sonal ñun euh, brightness bi nii moo ñu gën a si tefes bi comme exactly one like euh, one like euh, mun naa ñëw tey as a Gambian tey suma waay o oh, suñu lii la expliqué na ko ne ko moto yii nii fu gaay di duggee ba di ñëw di tey si fii nii lii naka la mun a demee nii soo da nga teg ne daf maa wax dafa dem si baana baana bi imagine le baana baana bi amul lu mu ko jox yaa ngi maa gis kenn du wax dara. Ndoro kana Sénégal Sénégal ni fure dajee bii bii bii bii. ni mon tiga dojo yeko dojo ila nyo ita wafila war senegal ole fele jam ndol mafo ko senegal mafo gambien ngo gambien senegal ala nga moy président mo je nga bondi nga président ku dolo because more than 20 something years hands still, steel tafe so abé ñamen hands still steel abe won ñam no kengis fo mo nam problème mo sa président ko nga bondi sa senegal el kanay e ko lu ndol kanay e ka eh, president e ka ma koy fo on kala ba ita senegal e sa radio no wodo ba ha sta sénégalais rari sore je bandur mafo gambel mafo sénégalais go gambien sénégalais be ciaw nga ñoo moy badala nga adida man kama soto man jonkon soto ha e ka bonna baro fo e kana fo e beke kuno fon e ka sewol nyama so kon fo nante kala e ba ha o mo nyana kala so ndol be do say ndol mom bam fento han e e baro la pale fon kono fon la fel fon nay ñoje mambe kede nga be explain lay loolu moo tax over twenty something years ñun tefes si Banjul amuñ sax kama bu correct ifiñ rugiloo bu mu fi ñëwee nii lañ soog a am am pilot ifiñ pilot maa laa waa ne sax sebene kay sax over thirty something years amuñ ko tefes non te Banjul rek la Banjul rek wa mbokk yi nga xamne ñoo ñoo sétane fi ci Sahel Network TV man la sen xarit di Abdoulaye Souare ñoo waton fi, wot on the Street mi waxtani mbeda bi tey na dañu won ci tati pere bi fii nga xamne fekk ci waa Banjul domi Gambien ci nga xamne ñoo nekk fi ci tati pere yi muy fisameen yi muy napakat yi nga xamne domi rew mi lañ ñom nag ñu amone ben organisation bi fii nii si bir Banjul fi ci tati pere bi nak de ma dañ di dox deena doxi ñaxtu bo xamne ñom ñu ne bi mi nga xamne moy Cham tey nag ñëwoon nañ fii na si taati pere bi pour waxtaan ak seen président bi muy Babou Cham waaye Babou Cham nag dafa bañ pour waxtaan ak ñun so loolu la ñu amaloon fii si waxtaani mbedd mi muy Word on the Street si taati pere bi fii si Banjul jërë ngeen jëf.